Euh, Ousmane Sonko gagné na ca Ziguinchor d' après premier résultat yi loolu it noo ko jàngatee. dama koy euh, félicité ku dem ku dem campagne gagné am ndam dañ lay félicité. Mhm. jàmbaar la. Mhm. man jàppoon naa ne bu ñu gagné parce que man pour man campagne ñu foofu mais comme gagné na comme nee nañ gagné na ci waxuñu mooy définitive mais comme nee nañ gagné na man ku gagné dama lay félicité. Mhm. man ku gagné ci Sénégal dama lay félicité parce que ku gagné jàmbaar la. tey xam nga lan mooy premier gagné dafa am sel suñu dem élection am na ñoo xam ñu ngi tund ci depuis trente ans mosu ñu dem élection loolu dañ am na ñoo xam ne fii ci Tëngéej ay mosuma dem élection mu mm-hmm. Mm-hmm. donc man ah euh, première ngi nii muy dugg ci li nga xam ne it moom mooy élection candidat Yewwi Askan la woon foofu ca Guédiawaye wax nañu ne it moo dugg Aliou Sall. waaw non euh, loolu bu ko defee man dama koy féliciter moom tamit parce que ci coalition bi moom. coalition bu mag la te xam nga Sénégal mënuñu fal xool yi lañ mën. su comprendre la donc man yàlla dafa dogal ni man tey ba président Macky Sall taxawee taamu taamu nit ñu kii laa jiital à risque te kooku ku si ne bi war na ma mën a jiite dama dem perte bi moom ñu am keneen ku gagné dinaa la féliciter mais man je me félicite moi-même. Mhm. parce que tey jii nanguwuma ku ma leen de man tey bu ma demoon pour Benno Bokk Yaakaar. tey mën nañ ma wax lu leen neex mais tey. bañ ma waxee ni ma kaay topp ci ginnaaw kii dama ne du topp ci ginnaaw parce que dama bëgg a demal sama bopp. Mhm. dama sama bopp donc man tey ji ndam rek laa mën a am résultat bu mën a ñëw ndam laa ci ndam laa ci jëlee parce que bokk na ci li nga xam da dañ leen di leen di leen dugal seen biir poche. Mhm. voilà